kii di Mame Mbaye Niang ko jiiñ ki ko jiiñ du usmaan Sonko Birahim Seck la tudd le festin de trente six milliards il faut que ma liir livre bi en entier titre bi nu mu tudd ma wax leen nu titre bi tudd man débat bi teguma ko ci Ousmane Sonko ak Mame Mbaye maa ngi ko teg ci. fa mu sokkee ko. ok. ba problème bi jugee. Mame Mbaye toog na ne rapport am na. Mhm. ñépp dégg. Amadou Ba premier ministre toog wax ko. waaw léegi ñu toog fii tey Sénégal ñun ñëpp ñuy débattre di xuloo di xeex di dóor ay nit bal ci loo xam ni. ñun ñëpp xam nañ ni am na comme li ci Adji Sarr. Mm. ñun du ñu nite tuuti ngeen si ñu ko sañ wax du du ñu nekk ay nit tuuti saa yu ñu toogee. ginnaaw war maak lu mënti doom ñu dañuy sukk ci kanamu kilifa yi naan leen jox nañ leen seen eegukaay waaye suñu bopp ku si nar a toog dañu laa daggal gannaaw Casamance ak ndara ak Kaolack la ñuy départ fu nu dëgg mu la moom këcc këcc la noo def di dëgg mu la moom xam nga lu tax. parce que askan kenn ko saaga ay ndey. Mhm. le régime en place est en train de nous injurier c'est-à-dire de nous dire allez vous faire voir ailleurs lu ma bëgg def danaa ko def. Mhm. dictature mu ngi tàmbalee ci ñëw fekk nit ci biir otoom toj otoom jël ko dem. Mhm. dictature mu ngi tàmbalee ci fekk ay nit yu ñuy tuddee presque nga gaza leen ne sama yoon newu ci. dictature mu ngi nekk ci nga fekk ay nit tëj leen ci seen biir kër ne du ñu génn te tegoo ko ci këyit tegoo ko fenn te defuñu dara. dictature mu ngi nekk ci protéger koo xam ne newul ci yoon kat moo newul ci yoon dans ce pays dans cette histoire là disons-le une bon fois monsieur Niang Mame Mbaye newul ci yoon il doit rendre compte aux Sénégalais non c'est lui qui dit. non yow miy wax na man def naa yow yow sax dama lay yóbbu yow ñu yoon teg lox loxo yow ba yow sax doo bokk ci élection yi yow. te moom ñu ba xam def na wala defu le terme approprié de cette histoire c'est que ces gens y vont d'une manière qui ne pas civile du tout. Mm -hmm. c'est incivil. bu ñu doon wax relation de civilité diggante war ma wala relation interpersonnelle. <laughs> naan diw ak diw joxante nañ cër dañ naan ñii nguur bi joxuñu cër. Mm-hmm. te si seen taxawaay dañu koy woon chaque chaque jour. Mhm. dafa am lu fi xewoon mars deux mille vingt et un ñu ñëw ne loolu doot fi amaat. li ngeen defoon bu amaatee loolu lu raw loolu amaat parce que peuple dina dellu gannaaw de di moytu mais bu sësee. Mhm. mais mel ni commencé na sax ndax jamono juñ toll yi ne Auchan bu Mermoz ñi ngay wax kat yi ñu ngi koy taal ñu ngi euh, taal yenn ci euh, dem dikki yi ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni jamono ji ndaw ñi ñi ngi ci mbedd mi mu mel ni daal bu ñu moytu li amoon mars bi ñu weesu dina amaat. yàlla na yàlla saxal jàmm Sénégal ñaan boobu moom. Mhm. wallahi azim duñ si tay mhm. tey bu fekkoon dañ ma naan ñaanal yàlla dama naan yàlla yàlla àtte dëgg ci réew mi. amiin amiin lenn nag ko wax ñu bëgg bëgg bëgg jàmm. Mhm. lu ñu jàmm lu ñaan ñaan ñaan jàmm. jàmm kenn ko ñaan ci lu foo ñaan ci dëgg. tax ñu naan yàlla na yàlla àtte dëgg ci réew mi. jàmmal Sénégal tey li xew lan la. tous les peuples du monde danoo xeex jël seen liberté moom seen bopp seen souveraineté tabaxaat seen dëkk. Mhm. maa ngay dégg ay kàddu. waaw xale yi ku ci dee yaa perte sa ça s'appelle de la fumisterie kenn ñaanul dee ci li nu mel. yàlla ci yàlla mhm. muccal ñëpp. Mhm. yàlla bu ci kenn am jafe-jafe. mais il y a une provocation qui n'est pas sérieuse. c'est-à-dire mënuloo fekk ay nit yu taxaw. du ñu sàcc. rey ñu nit def nu dara nga jël dóor leen gaz ci loo xam ne tegul fenn. surtout ñuy def seen liggéey surtout. Mm-hmm. encore ñuy def seen liggéey. cité mm-hmm. kër góor gi mais mais xanaa ay nit dëkkuñu fa. cité kër góor gi am na ñu fa dëkk ñoo xam ne ci nguur gi lañu nekk. Mm-hmm. mais tey amuñu jàmm. te pourtant dañuy wàcc seen bureau yi dem seen kër. ñenn ñi nekk ci seen biir xoolal bëgg a génn nga nga bokk APR dëkk biir cité kër góor gi bëgg a génn ñu ne la ay eh, taxawleew te pourtant yow ci ñuy organiser loolu nga bokk. ci nga kan la ñuy am xel kan la ñuy réfléchir. Mhm. di def mu yoonal mais Afrique mooy continent bi nga xam ne tubaab dafa ñëw ne leen jàppante leen ngeen doon ay jaam dof yi ñu la jàppante. voilà le mal. Mhm. aujourd'hui tout ce qu'on dit pour que réew mi rectifier wu nekk sur le bon chemin c'est quoi mooy on ne peut fekk ñun ñu dox 62 ans ñu delloo ñu jamonoy Senghor ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mënut a nekk. quand on entend Ismaïla Madior Fall te nguuru senegal bi 24 heures sur 24 dañuy daggal ay ndey ñun waaye ñun ku nu ko daggal daggal la ko loolu ko yéene yéene na lu ko war ma rek la ñuy séq ak rafetal. mais bu fekkee da nga bëgg toog suñu bopp nu daggal la xam nga ci kàddu dafa ñaaw. daggal nanu ko mais li noo def moo gën a metti souffrir. quand on me dafa pare émission il paraît dañ ko tiré soi-disant mu daw làqatu ci benn hôtel xaw ma ci soo ba tey maa ngi koy jéem a woo mënu ma ko jot am na solo yeneen xarit yu ko woo jotuñu ko. Hmm? pourquoi parce que il dénonce toog na ci télé bi il dénonce loolu mooy yéen Sénégalais yëpp noppi leen. dictature yéen APR il faut ngeen ñu wax leen ko dictature du am Sénégal. d'accord billaahi wallaahi tallaahi yàlla nañu yàlla may fekkeek tal ak salaatul fatiha dañu kaa ñaan suñu borom fu ñu toll. dictature yéen waa APR du am Sénégal wala du ngeen ko nettali. d'accord léegi Pa Assane li nga xamante ni moom la ñuy gis jamono ji di direeku genre ñu gis ko ci ci mbedd yi y a yi nga xamante ni jamono ji mhm. ñoo ngi commencé viral. Mhm. ci euh, réseaux sociaux yi affrontement gis nañ sànq ci VDN bi li nga xamante ni moo fa am. auto gendarmerie nga xam ne voilà voilà voilà UCAD tamit euh, am na ay échauffourées ndax jamono ji tamit waruñu essayer. jeexal jeexal li nga xamante ni moo di moo di mbir mi parce que comme ni gars di wax euh, sama olof la duñ ne ay du yem ci boppi borom te gis nañ li nga xamante jotoon nañ fee xew force à la loi gi nga xam ne moom nañu bëgg a forcer askanu Sénégal gi est ce que duñu duñ duñu duñu yeewi askan wi ah ci ci yi nga xamante moom la ñuy utile duñu yeewi askan ci ci force bay xeex bi nga xamante ne moom la ñu def ni jëmee ci politique ak askan wi euh, Jérôme euh, yeewi askanu Sénégal du dara lu dul dox ci dëgg doxal dëgg Sénégal dafa am ay këyit këyit yi ne sa avocat kenn mënu la jël te sa avocat taxaw kenn mënu la def lenn te sa avocat waxul àdduwul. wax ni mu war a demee. Mm-hmm. Mm-hmm. on a vu les images. on violente Ousmane Sonko au nom de quoi. Mm-hmm. d' accord soo paree nga may may nga may may image yi nga xam ne moom la Paa Assane di wax. ne effectivement au nom de quoi ci lan c' est à dire fan nga kaa teg. ci ci jaay doole moom ka mu sekkal problème bi de xëy na ca fajar dem. oui amul benn problème. waaw mais mais c'est-à-dire tey jii nii ni nga def Ousmane Sonko c'est simple. Mhm. mooy naa ko fexe humilier wan ñëpp ne leen am naa doole yow dof nga ku bu dee loolu am na ku kaa xalaatee laa wax yow dof nga doo nit. Mhm. parce que dof weesuwul yore doole ba ñëpp xam ne yow yaa ëpp doole ñëpp yow. nga taxaw naan maa yor doole dof bu rëy nga doo nit. Mhm. xam nga lan mooy nit am doole xam ko nite di doxee raison. te ñi jaay doole ñëpp a daanu àdduna bi ñi fi jaay doole ñëpp laa wax kaa mënti doon da wàcc. doo ko nettali Moussa Traoré dafa nekkoon Mali. Mhm. anam. dem na Aboubacar Keita anam. dem na UBK. ana Alpha Condé. wàcc na. ana ñu. Gnassingbé Eyadéma du moom moo faagaagal Sylvanus Olympio ca Togo. Mhm. toog ca nguur ga jaay doole xoolal anamu. doomam a ko remplacé. nan la nekke il faut que te man dafa am benn affaire boo xam daf ma jaaxal damay toog ba mu yàgg ma ne mii mais lan la président Macky Sall moo doon toog naan xam nga firaw na nangam ak nangam yonent yàlla Moussa président Macky Sall moom la yàlla nattoo kàddoom yëpp dafa mel yàlla daf ko tegoon pour que tey bu ñu tollee fii yàlla indil këka ne ko sëñ bi yaa waxoon lii moo tax suñu borom rek a xam jàmm. Mm-hmm. aujourd'hui monsieur le président vous êtes en train de faire hyper méga terrain mal au peuple sénégalais ba sénégalais yi naan yow bëgguluñu président Sall sénégalais ñu ne yow bëggoonu ci taxawaay ci jëfin ci lépp mm. nous souffrons le martyre et apparemment vous êtes tranquille ba pare ne bu ko fa kenn wax président dictature du am Sénégal mm-hmm. te mënut am Sénégal. Mm-hmm. ci suñu deret la c'est impossible. d'accord man li ma laaj mooy ne kii dem gis nañ nañu vidéo Pastef bi bëggoon na yóbbu doomam école mais dañ ko ko daal di aaye image boobu mi ngi daw ci àdduna bi yëpp ni ki tey tamit gis nañ li xew ak li nga xamante ni moo xewoon la fois passée ci procès bi doxoon digganteem ak Mame Mbaye Niang euh, ci xeet yi nga xamante ni mu ngi koy subir euh, mën nañu wax que ni sax peut-être ñenn ñi jàpp nañu dañu koy daal di toroxal image yooyu ngay gis pas lan nga lan nga ci ban jàngat nga ciy def en ndax jàpp nga ni dafay wàññi doyom wala daf koy gën a yéegal no xam nga tey jii nii moi le sentiment que su fekkoon dañu nekk ay psychologue wala ñuy xalaatee comme psychologue. Uh-huh. dañ naan y a quelqu'un qui est malade dans ce pays. c'est qui. il y a un malade mental parmi dans ce pays <laughs> c'est la vérité. maanaam comme xam nga lan mooy feebar feebaru xel. Mm-hmm. feebaru xel am na ci Sénégal am na ko am feebaru xel ci Sénégal xam na moo la lan. Mm-hmm. vous pensez que li xew nii c'est contre Ousmane Sonko non. c'est contre le peuple du Sénégal. parce que Ousmane Sonko dajee bokk. nekk ci benn pièce. li nit ñi doon kaas di ko wax mu ñëw di ko wax nit ñi jiital ko. aujourd'hui j'ai envie de dire où sont les leaders de yi Askan Wi après ñu ne ma non ñu ngi ko tribunal. Mm-hmm. non votre place n'est pas au tribunal. Mm-hmm. les leaders de yi Askan Wi seen place newul tribunal. dem dajaloo foofu toog ne la koy sutee non non non. quand la forfaiture est de trop seen place mooy taxaw nekk ci média yi wax ak nit ñi ñuy dégg mm-hmm. ne nii ak naa ak nële loolu mooy stratégie mm-hmm. après nag à un moment donné c'est comme si on donne raison à certains qui disent que il y a de la lâcheté et de la fausseté et un manque de sincérité à un certain niveau il y en a qui le mm-hmm, disent mais attention est-ce que réellement cet amour dont on parle au sein de Yewwi Askan Wi ça existe apparemment il y en aurait quelques-uns qui seraient contents de la situation da di juum li xew nii à la seconde près ñu war la Ousmane Sonko débrailler xotti yére bi mbaxane bi naaw et si vous pensez que c'est de l'humiliation mooy que yéen amu leen xam-xam ay cuune yu nganda ngeen dof yu rëy parce que xam nga lan moo fi ne vous êtes en de montrer au monde entier comment on qu'il y a un Sénégalais mm-hmm. qui est au de nous nous vous le montrons même à Ayon nous vous le montrons il est là le monde entier va le regarder va le voir ngeen ne am ngeen xam-xam tufu dof yu rëy ngeen yéen ñi xalaatee noon xaw ma nag kan moo la xalaatee noon nit day muus mm-hmm. dama la ne il y a un malade mental parmi nous ce malade mental c'est qui allez chercher vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un peuple qui a tout compris parce que le niveau d'information est à temps réel ngeen ne da ngeen di brouiller ay réseau internet da ngeen di da di da di da ngeen di vous ne pouvez pas empêcher les gens de savoir ce qui se passe sawaay soxna si dañu toll ci àdduna boo xam ni évolution bi dans le temps positif du terme c'est irréversible c'est inéluctable uh-huh. amul nit bu am màqaama ne damay toog tey deux mille vingt dem def lu ma neex amul européens bi ñu jaxasee Russie ak Ukraine guerre bi gën a tar fi mu nekk nii Russie di nekk ci dominer di avancer. Uh-huh. tubaab yi ne dañuy dooleel Ukraine. Ukraine mooy dof bu réy bi parce que moom moo am alal est-ce que xam nga ni Ukraine moo ëpp alal Europe réunie mais qu'est-ce fait faire la bêtise du siècle jël benn comédien def ko président Zelensky mooy dof bu bi mu mu dugg ci loo xam ne du woon loolu moom mu waroon ànd ak Russie def force bloc defu ko tey Iran mooy defar ay armes di jox Russie di ko dooleel. àdduna mhm. bi foofu la toll tey Europe di wàcc Amérique di wàcc xam nga lu tax Soudan mu nga nële ne maintenant j'en ai fini avec le dollar le Soudan. le pays des grandes universités africaines tey Sénégal ñu war a toppatoo suñu bopp avancé quelqu'un qui commet de la forfaiture de gestion dans un projet appelé PRODAC on ne le dénonce pas il n'est pas dans, je ne sais pas dans le contexte de devoir nous expliquer non c'est lui qui exige qu'on dise à ce candidat-là voyons oui il va falloir qu'il vienne dire sinon il fera pas partie des élections waaye sen déet na na nga ko yemale na faa seen na nga ko na nga ko na nga ko na nga ko na nga ko na nga ko yemale foofu nag. Mm, balaa balaa balaa balaa ñu lay euh, bàyyi nga nga nga dem parce que yaa ngi doon wax ne cinq minutes nga ñu may waaye nag xam naa xamoon naa ne soo fi toogee cinq minutes moom day daal di gàtt. Mm. dama ñëw juste dans dans les faits yaa ngi doon wax ci mbir yi ci mbir yi Mame Mbaye Niang aussi foog foog ñu foog foog ñu taxaw foofu noonu parce que euh, sànq maa ngi doon dégg sama benn collègue naan xëy na Ousmane Sonko la. moo tax yëf yi toll fii nii mais gis nañ ay yeneen nit ay journalistes sax wax nañ ci euh, rapport bi ñi naan rapport IGF ñi naan rapport IGS fi nga xamante ne foofu yëf yëf yi toll est-ce que Mame Mbaye Niang moom lan la am ci ci ci ci ci ci ci ci li mu war a nga xamante war na ko mën a gañe ci procès bi. mais Jérôme. parce que am su nekkee nomination am am na ko ba pare wala dafa. wala dafa bëgg a gën a yokk boppam ci wàllum politique Jérôme. il y a il y a de ces questions moi quand on me pose dama naan bon dañuy laaj pour laaj avec tout le respect que je te dois et c'est la même question que beaucoup de journalistes posent mm -hmm. sans prétention ñun toj ñu fi xamul dara moom dañoo jamono bi dañoo toll ci jàng mm-hmm. di déglu ay kilifa di gëstu ñu ñuy wax mm-hmm. Jérôme ce qui se passe ça s'appelle de la haute forfaiture depuis la nuit des temps l'Afrique a vécu comme ça maanaam l'Afrique a toujours régné ses dignes enfants Cheikh Anta Diop dañoo nekk ba mu sonn ba loof ba lot ñu door ko delloo université de Dakar pour mu jàngale diggante quatre vingt et quatre vingt six mu faatu defu fa sax dix ans jàngale ci koo xam ni àdduna bi la doon jàngal ñun Afrique ñun Sénégal ñoom président bu tudd Léopold Sédar Senghor non son combat c'était contre Cheikh Anta Diop comme ce qui se passe entre Macky Sall ak Ousmane Sonko. voilà le mal Moussa Traoré qui vient trouver un excellent Modibo Keïta au Mali qui commence à construire le pays ne fédération du Mali et du Sénégal mhm. tubaab jaxase leen Moussa Traoré dem coup d'état affaire bi doon naata xóona boo xam ne amul benn xam-xam tubaab yi di ko drive ba nit ñi sonnee jaxase ko moom wàcc ko mhm. dégg nga wax bi l'Afrique a toujours vécu comme ça mooy ses meilleurs enfants noonu dañ leen di ruube nasaraan nax leen jaxase Patrice Lumumba. après ñu deewee nag ñuy doogay. Ahmed Sékou mhm. Touré ñuy doogay xam seen njariñ. oui ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. aujourd'hui Ousmane ko man xaw ma lan lay nekk suba yàlla rek a xam. Mhm. Mhm. su waree nekk président Sénégal yàlla na gën ci Sénégal ak ñi ñi ñi nekk Sénégal. su fekkee gënul mu doon président Sénégal kon yàlla bu mu ko doon. dégg bi. ñun principe la noo demee dañ ne. su fekkee Ousmane Sonko doon président Sénégal gën na ci Sénégal yàlla na ko yàlla dogal te mu jig ñu su fekkee gënu yàlla na yàlla defal ñu ki gën ci ñun falu te moom mu am li gën ci moom loolu moo la ñaan bi parce que nous ne sommes pas obsédés wala nekk des des des fanatique dans un sens non sauf que ci taxawaay bi leader yi fi nekk yépp xale yi Ousmane Sonko lañ taamu waaw est-ce que nit mën naa taxaw ne nit non bul bëgg Ousmane Sonko bu la naqaree yow da nga malaat malade bi demal nga dugg ci xol nit yi nga dagg nga jël nga génne Ousmane Sonko nga sànni bu dee dalaa metti yàlla na nu yàlla atteeg lu bon li noo teg ak ki nu kaa ci lu gaaw te ñun ñëpp ñu fekketal te mu jik ñu. d'accord du ñu kenn lu bon. Mhm. mais képp ku nar a faagaagal Sénégal ak sénégalais yi yàlla na la fi yàlla sorele. jamono ji ñoom ñaar ñëpp ña ngi ca tribunal ba lan la ñu lan mooy xaar Ousmane Sonko ci procès bi. dara tuus ñebe déggoo ma de. Mhm. dara tuus ñebe maa ngi dégg ay nit naan Ousmane Sonko na bàyyi parce que xeex bi jaru ko. Mhm. waa ki war a bàyyi te pare nag ki pare te war a bàyyi. ngeen foog ni président Macky Sall bu ne woon du ma nekk candidat wax ji jeex di yëpp dinañ ci nekk yi yëpp du am kon heure bi APR mu ngi dox ci wone bilan am ñoom taluñu sax wane li ñu liggéey tal c'est-à-dire ce qui est extraordinaire mooy ce régime laa talu sax won sénégalais yi lu baax li moo def loolu ala ak cuune ñàkk xam-xam weesuwul ngay defar di liggéey di tourner di xuloo di xeex yow taloo sax wan nit ñi ne leen gis ngeen li ma def je vous donne l'exemple. te xeex bi tamit mën na yàq li ñu def lépp ndax xale yi jamono ji ñu ngi ci. je te dis ñu ngi taal ñu ngi taal ñu ngi taal. jaara te lépp mën a xew ci taal. jaara. Géva mhm. ak ñëw seetaan mbay ànd ak parti wele ak ñëpp <laughs> xoolal le président Macky Sall vient de faire quelque chose d'excellent. Ah yéen waa APR laay waxal APR Alliance pour la République le président Macky Sall vient de faire quelque chose d'excellent. vous n'avez même pas le temps d'en parler xulil le croisement de Cambérène le nouveau pont bi ñu fa def mhm. nga xam ni doo taxaw deux minutes ngay def jàll dem seur c'est majestueux magnifique et bien mais talunu ko ndax la nekkee di def lu bon. askan bi sax dafa mel ni gisuñu. talu leen dara ak yéene mhm. nit ñi lu bon. Mhm. APR yéen la ñu waxal talu leen dara ak def nit ñi lu bon. te pourtant def ngeen lu excellent lu tudd pont croisement Cambérène talu leen won ko sénégalais loolu mooy nullité ça s'appelle de la stupidité ça s'appelle de l'absurdité c'est-à-dire que vous ne parvenez même pas nga dugal bii bu rafet maa ñu sax bii bi ngay xeex reprise de volée contrôle orienté tourné kii action bu jóge ca góol ba pas le but du siècle non nga bokk fa daw fekk waaj ca kaw tribune ma naa ko waxal bii bi rafet na wala rafetul Sonko xee teel kii waaj a nguufaan la nga taxaw naan waaw man la dof nga doo nit réew mi moo toll foo xam ni. Mhm. c'est-à-dire c'est c'est l'existentiel du malade mental c'est-à-dire que dafa mën ni réew dof. mais est-ce que nekkul nag opposant bi nga xamante ni moom la ñu amal affaire dafa yóbbu seen xel. kon de kon de yóbbu na ko kon nag yóbbu na ko xam nga nit du am obsession ci c'est comme quelqu'un qui di waaw budul Ousmane Sonko keneen du fi falu déedéet bu ku xalaatee noonu da nga jub. wala ñu naan tout sauf Sonko. boo nee bu dul Ousmane Sonko keneen du fi falu da ngay juum. boo nee tout sauf Sonko da ngay juum loolu mooy erreur bi il faut il faut le sens de discernement ñuy tànn. di di xool di observer. Mm -hmm. naan non Jérôme il est intéressant ah oui. Mhm. nañ ko gérer utiliser ko côté bii. Mhm. jaara elle est intéressante nañ ko utiliser côté bii. Mhm. waaye dof weesuwul non non non Jérôme non non ja jaara noo non non di di di këndëng encore qu'il faut énormément de lucidité quand on gère un État. Mmh. lucidité physique et morale. Mhm. physique et morale. te kilifa yi bu ngeen xëyee da leen utiliser vitamine C vitamine C c'est du potassium ça permet d'être lucide et mieux. bu rafet. oui mieux la vitamine D est importante. Mmh. mieux A aussi c'est important mieux mieux bañ stress dafa baax xam nga lan moo la bañ stress. Mm-hmm. Mm-hmm. boo toogee sa kër nga waxtaan ak sa njaboot waaye yow boo toogee sa njaboot naan leen sonko ba koog man boo toogee ca bureau ba sonko ba koog man. boo toogee yow jàkk ja sax talook waaye sauf que nag il faut poser la question qui c'est qui prie et qui ne prie pas. Mm-hmm. kuy dem église ku demul église foofu la mbir mi toll. avec un sens élevé de bonne foi et de foi en Dieu am na lu bëri loo xam mën na ñàkk. hélas ce pays là si merveilleux. qui a cinq trophées continentaux. amuñu ci treize mois. Mhm. nous n'avons vous ne yéen APR yéen yéen bon yéen may leen ñu sax ñun ñu savourer suñu ay coupe. yéen yéen a soxorte ay ñam. yéen lan moo leen dal APR yéen lu leen dal ku leen yàq xanaa liggéey bi këpp seen kaw wala dañ leen a liggéey kon yàlla jox na leen petrole gaz zircon fer phosphate lithium te arable en à finir. yàlla jox na leen ndox. moo bari. yàlla jox na leen tous les projets les projets de Wade de Diouf réunis de Wade de de bu ngeen ci jaaree quand on parle de la voie de dégagement nord APR c'est un projet de Léopold Sédar Senghor c'est la VDN ça va jusqu'à Saint-Louis 784 milliards du terre voire plus bu ngeen ko defoon ci loolu fii ba Ndar nit du taxaw day daw rek di dem ngeen bàyyi ko fa dem ne da ngeen di autoroute Tivaouane Ndar yéen a xam lu tax pour des kilomètres qui vont nous coûter quoi benn kilomètre ñaata la ñu war a coûter yenn borom xam-xam yi nee nañu di ngeen ko facturer à trois milliards ñii ne deux ñii ne un benn kilomètre un milliard ñenn ñi ne deux ñii ne trois bu dee am na te amoon priorité ci voie de dégagement nord bu Senghor tegoon nga xam da ngeen ñëw rek tàllal newu leen ca ngeen am la canal du Cayor du président Abdou Diouf vous irriguez tout le pays sunu mbay suqaliku APR yéen lu leen dal ngeen topp Ousmane Sonko mi mel nii yéen yàlla daf leen wax ne Ousmane Sonko mooy nekk président Sénégal APR yéen la waxal est-ce que yàlla daf leen wax ne Ousmane Sonko moo la doon président Sénégal kenn xamul kuy doon président Sénégal jeunes yi dañoo am yaakaar ci moom ànd ak moom lu nekk yéen a ngi kaa def. bloqué liste électorale révision njuuj ndaaj loolu yëpp yàlla nag àppam la xam ñun de xamuñu mhm. constitution moo wax ne jeexal ngeen mhm. ngeen di wëlbati Ismaïla Madior Fall wax na ko mhm. yéen wax ngeen ko la constitution de 2001 a consacré l'article 27 depuis yow président Macky Sall nga ñëw yokk ci nu ne peut ne tëj nga ko feere nga ko waa lu waral coow li ndaw si nee na jaayu leen mais Sonko ngi jaay. d' accord <laughs> bala mu laay bàyyi man dama koy laaj ci zéro ci suñu takk der yi maanaam force de l'ordre yi ni euh, man man la moom laa ko mën a tuddee am nañu ko ci askan wi euh, da ngay gis ki nga xamante ni dafay jàkkaarloo même sax suñu ñun ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi euh, gis nañu lu ñuy daj ci terrain bi yamalatuñu ko sax ci Ousmane Sonko mais ci askan wi yëpp ndaka nga jàngatee jamono ci ñu toll nii suñu force de l'ordre yi ak anam bi nga ah. moom la ñuy amalee seenub liggéey. Ah, am na ñuy wax naan force de l'ordre est-ce force de l'ordre effectivement et cetera. dem mm-hmm. Ousmane Sonko yëkkati na du discours. qui disent que dafa am milice et mm-hmm. bref mais man benn affaire laay wax est que xam nga am na ci jamono histoire benn agent de police bu nit ñi doon nettali. Mm-hmm. dafa séq nit dóor ko mais keroog la gëj a dóor. effectivement. dafa séq nit dóor ko xulil parce que dóor day tegu ci yoon. mais bu tegul ci yoon mën nga dóor ku la neex am nga doole sol nga tenue parce que tenue boo ko solee yaa ëpp doole ñëpp mais sol tenue nag taxul nga am doole. Mm-hmm. mais yaa ëpp doole ñëpp. Mm-hmm. ci moment ba ci circonstanciel ba après dangay dem sa kër summi ko toog ak sa njaboot àq boobu day topp sa njaboot. Mm-hmm. ndeysaan yow da nga jàpp ni da ngay exécuter ordre bu bon mais dalay topp foo xamul ba say sëtaat te doo ko yëg ngay toog di souffrir nga dem ba nekk à la retraite sonn nag. ñu naan diw pourtant ndeysaan mais da ngaa tooñoon. Mm-hmm. am koo xam ni dama lay wax xulil histoire réelle dóor nit waa ji jooy ba pare ne ko est-ce que xam nga ni yow tey ngay mujjee dóor xamul li ko waa ji wax <laughs> yàlla àtte après fa muy mettee nag mooy dóoratoo te yaa ngi dund di yëg ni dóoratoo. Mm-hmm. dara dootul dootul la de dóoratoo nag yaa ngi yëg yaa ngi dund mais di souffrir te mënatoo dóor. yàlla nañ ci yàlla musal. Mhm. dañuy wax ne gis nga ku lay def loolu bon toog fa mu toog naan la defal kooku bugg la te bu la def loolu lu bon ba pare sa kaw la jëm. Mhm. dictature moo dul am Sénégal incha allah wallahi azim c'est dans le sang mënut a nekk te nit ñi duñ ko nangu. Mhm. te fii ñu jëm nii li ñoo woon Sénégalais yi c'est cette folie là. qui tend vers quelque chose qui n'existe plus dans le monde. Mm -hmm. mais mu mel ni dañ see bëgg a dem. Mm-hmm. moo tax ñuy delloo ginnaaw quand j'entends Ismaïla Madior Fall parler de oui limitation de mandat nangam nangam alors que moom moo doon wax ni affaire bi jeex na. Mm-hmm. waaye nag jamono bii dafa am lu xew. dafa am ko tudd sunu yaay Aminata Touré. kooku mooy coow li gis yi xew nii yëpp au delà de tout accolade keroog ba la <laughs> accolade ba. mbaa du foofu la mbir mi nekk. ba. fu projet bi toll ñu fa wax yeggee leen ma gaawee leen. jamono ji ñu ngi ci biir wax ñu ngi nañ. reprendre ne ah. fu mu toll waay <laughs> dunoo waxtaane ana reporter ya fa ne dinañ leen dugal information xam naa mën na ma de SNF pass la ma jëm mais mais mais bala ngay dem ñu laaj ko euh, Jérôme suñu dernière mooy que ni jamono ci ñu toll nii bu ñu fàttaliko leaderu Pastef bi ñaari procès la am bu Adji Sarr ak bu Mame Mbaye Niang mel ni bu Adji Sarr bi moom dañoo jël lépp faxas tekki suuf waxatuñ sax lu ci jëm booy seet bii la ñu daal di gën a favoriser loolee ban jàngan nga ci am dangaa bëgg ma wax la tëj mhm. dem sama yoon ñaar mais dafa mel ni ci bii lañ gën a am yaakaar ni moom lañ bëgg moom foofu la ñu mën a jaar képp euh, euh, Ousmane mais la réponse de Ousmane Sonko compliqué wul man bu ma doon Ousmane Sonko wax ji du bare mhm. xulin livre Birahim Seck laay jël mhm. téye ko te livre bi na ko ñëpp jëndi téye ko nii dem ak moom ca procès ba wax ji fin dafa am loo xam ni yabaate la xanaa xamoon dañoo yab peuple Sénégal mhm. ñu jiñ leen jël sunu alal du ngeen ko leeral non ngeen di wax ne non kii wax ne damaa jël alal kooku na ñëw leeral ni wane luy wane ne damaa jël alal. livre baa ngi noonu. te Amadou Ba ne rapport am na kii wax ko Mambay ña mu tax mu merenteeg Amadou Ba inspection général des finances contrôle wax ak lii rapport ci réew mi lii scandale coow li du ay Ousmane Sonko aji Sarr ci coow li mooy les la multitude de scandale bi am ci réew mi. te loolu dañu kaa wax dix milliards daa may lancer benn appel. pour clore ci kàttanu suñu borom. la presse sénégalaise. chers confrères du Sénégal presse sénégalaise yeewu leen yeewu leen yeewu leen <coughs> lii xew nii ñu am ci benn traitement de l'info bi nii. yàlla nañu ci yàlla musal. <laughs> yàlla bu mu sotti te gëm naa ne du sotti incha allah yàlla bëgg na Sénégal. <laughs> lu mu leer la. barke Baye lay alayhi xalifa Ababacar ak Alaaji Fall ak maam Baye ak maam Bukunta Amady Ndaak Amady Njëgeen sunu maam Amady Dem ba ci sunu maam Amady Cissé Cheikh Omar Fouta Tall. <laughs> mi wax ne gannaaw na Souleymane Baal ak borom xam-xam yi ak université yenn ca Pire li ñu doon rectifier. moom Cheikh Omar moo fi xeex diine ji imposé ko. barke alxuraan laa la wax. Mm. ba ci sunu maam Alioune Assé Cissé ca jaamal jàngalekatu alxuraan bu mag bi ba ci sunu baay El Hadj Malick ñu naan ko Abdoulahi way juru jëy laa nekk Cheikh Modoog Cheikh Badou. Mm-hmm. barke Cheikh naa Cheikh Saad bu Chérif wa xeer Cheikh naa Cheikh Abdou Khadre Jeylaan naa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif naa Cheikh Mohamed Vadal bu ma neexee ma teg ci yonent yàlla Moussa ak yonent yàlla Issa teg ci les cent vingt quatre mille prophètes damay wax ni. la presse du Sénégal lii nii di xew nii nu la jouer le jeu bu sottee yéen presse bi yéen laay waxal chers confrères dootu leen bind dootu leen génn. Mhm. parce que bu boobaa dictateur bi da leen naan disparaissez ngeen dem toog dootu leen liggéey. kañ ngeen di yeewu. Oh, commencé nañ ko sax ndax da ngay wàcc ci terrain bi léegi ñu dóor la gaz ñu gazee la. kañ ngeen di yeewu. chers confrères arrêtons la farce sunu ay kilifa ay mag ñu ngi ci wetu président Macky Sall. ñoo doon bind des des lettres des éditos incendiaires contre Abdou Diouf contre Abdoulaye Wade tey ñu ngi ci nguur gi ñun presse sénégalaise ñu bëgg a toog ne duñu wax dëgg bi les réseaux sociaux di ko wax ñu ne réseau yi waxuñu dëgg. ay site internet de bons sénégalais nag jóg nag di remplacer presse bi ci wax dëgg. Mm-hmm. ngeen di sàggan ñu leen ñuy ñu ñuy nelaw nelawloo. gars yi yeewu leen waay bàyyi leen le traitement de l'info aujourd'hui c'est que la TFM puisse être en direct en live sur ce qui se passe que la 2STV puisse être en live sur ce qui se passe et c'est à ce niveau Bougane je ne te comprends pas sincèrement mais est-ce que tamit seen faute la ndax gis nañ fi gis nañ fi ñu fiy live nga gis ñu toj seen ay ñu toj seen ay à ce niveau dama mhm. je ne comprends pas Bougane et sa télévision parce que fi moo dénoncé quatre-vingt-dix-huit milliards. bu xeex bu mel ni amee ci réew mi Sen TV doit mettre la chose en direct pour être cohérent. bu dee buggaan mu noo seetaan kilifa bi nu ngi kaa nuyu. Sen TV dafa war a live ce qui se passe 2S daf ko war a live TFM daf ko war a live ak keneen ak keneen parce que en 2010 2011 les gars on le faisait. Mm -hmm. qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ba ba loolu mën nu ko def la presse privée mënul faral nguur gi ba benn niveau bi pour lan. parce que jàpp nañu ces médias là bu ñu defee direct dañ leen naan non dangeen di attiser le feu pendant ce temps y a quelqu'un qui met le réew mi bu ñu bëggee mu baax. Mhm. faw nu dëggu. yal na yàlla dooleel ñi am ñi nekk ci dëgg. ci réew merci merci bon Pa Pa Assane moo nekkoon euh, jaar euh, tey sunu gan gis ngeen mhm. analyse bi nga xamante ne euh, moom la jot a def ci waxtaan bi fàttali ñu ni itam mbokk yi di seetaan mën ngeen def ni Pa Assane def waaye nag ci téléphone ngeen koy jaaree régie donc su ligne bi noppee rek mën nga ko ubbi ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñoom itam mën a voilà voilà voilà